alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani bismillahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu weeru mars yu nga xam ne xew-xew yi ci jagleel jigéen ñi nu euh, dugg ci biir nag diggante góor jigéen wàllu sëy ya ca aju waaye tey jii nag xam ngeen ni siyaar général bi ñu def Tiwaawan bokk ci barab yu barab yi ñuy askanale diine te mu doon ko sëñ Sam Mbaye radiyallahu anhu tey jii daaraam gi ñu ko doon liggéeyal ci ndakaaru ñu koy sanc tey jii Kër Massar ci ginnaaw tool Abdoulaye Wade eh, weer wi ak weer wi ko jiitu événement diine yi gis nga ko fi ñu toll ni mu mel liñ ci mën a jànge mooy senegal moom eh, ñi ngi jàmbat mbon gi jikko yu yàqu waaye euh, am na wet goo xam ni animation ci wàllu wane ni ñiy diine ñor na leen fes na fi lool fes na fi lool lool lool lool dëgg yàlla Cees gii rek boo génnee Ndakaaru événement yi fi aman fan yii événement diine la ak yi jàllagul ak gis sama wëlëri di ko wax Abdoulaye Gaye bu deux cet événement bu mag boobu actuellement ñi ngi fa toll ci fan yi daaka gi fi ñu toll nii daaka gi nga xam ni dañuy gëti dem ca àll ba fañ koy defee góor yi ñooy togg góor rek ñoo fay ne def xalwa di jaamu yàlla euh, doonte bu jëkk nam doon demee mën nga ni am nag coppeeku waaye nit ñi yokk nañu jamono àgg foofu waaye nañ koy defee ba léegi képp koo xam ne yàlla yóbbu la fa doo fa mën a yàgg doo fa mën a yàgg mën nga sax yàlla yóbbu la fa te mënoo faa yàgg ak sa wéradi wala sa ñàkk jot waaye dama waxee noonu nii foofu moom fukki fan yaa nga def ko fa ah, moom yóbbul koo xam ne yàlla ay kese kese yóbbuwula fa waaw waaw weer wii nu génn gis nga moom it ci rajab événement yu mag yi bari fi lool boo demee dëkk ba lee ñuy wax moom it Daaru Gay ak dëkk yi ko wër dëkk bu ne installé na def na gàmmoom bisam bisu diineem loo ngi ñu jublu ci Daaru Muxti muy euh, gaaw bi ñëw ci daje gi nga xam ni Cheikh Ahmadou Bamba bi mu jógee ci tukki bi kim dénkoon ginnaawam muy maam Cerno Birahim rakkam mu woo ko mu fekk ko ndar ñu gise bis boobu dajeeg nisu saabaan nisu saabaan it doon bis bi suñu boroom joxoon yonent bi alayhi salaam mu bàyyi euh, fam doon jublu buy julli muy soowu bi waaye muy jublu ci penku bi muy dàkk kaaba gi mm, muy taawilul xibla weer woo xam ni moom it la ñu bañ koo sàggane ba duñ bokk ci saarul xaf la waajal ci ramadaan ci lan ci ay naafi la euh, waajal ko ci yokk li nuy joxe waajal ko ci wàññi luñ doon def ci lu dul am pox ndax bu ñëwee fekk mën nañ ko ba nu koy def ngir yàlla ba bu jàllee mu raxas nu waaye remplacer nu lépp loo xam ni mooy jikko yu sell yi kon weer la woo xam ni nañ ci góorgóorlu bu baax Kaolack gis nga moom it bisi diine ya siyaar yi ci fan yi nu génn Parcelles Assainies gis nga ko suñ mbokk yi soosa ak yeneen mbokk ya fa ne euh, loolu nag suñ xel da ciy dal bu baax bu baax li jikko yi yàqu-yàqu boo boo dee topp wet googu diine yitteel la ngay xool programme yi di nga sant ci wet am na lu la cay naqari mooy buñ koy def léeg-léeg fal couleur bi mooy gën a fés waaye boo xoolee départ ba jubluwaay ba ak niñ ko mën naa defee yow mi koy wujji sa yéene rek lu doon yàlla yi kese mën nga jaar jariñu appel bi bëkk dem bi mi ngi nii jàll fële ci yoof kon yii nii ah, du du asaar wër ñu ko bàyyi mu jàll rek te duñ ci jariñ bariwul réew moo xam ne nii senegal deme noonu la deme ba léegi dañoo jox cër eh, wàllu diine ji ci wàllu gu mel noonu bu ne diine ji nag rawatina ñi ñi mooy kilifa diine yi ki jiite woon deer eh, saarte li mu wax tax ñu ñu ñu daal koy wàcce doonte jéggalu nag nit ñi man koo jéggal waaye la mu wax jëmale ko ci kilifa diine yi loola ak li mu wax jëme ko ci atte bu yàlla atte ba teg mel ni danga ciy dutee ndax booy wax ni en tant que lu nekk ci vingtième seekal ah ba léegi xaw ma jigéen euh, góor di ko ëppale ci miraas wala pourquoi bu ñuy julli euh, jigéen ma taxaw nii góor taxaw ak yu mel noonu ak leneen la nga wax jëmale ko ci ñi nga xam ñooy kilifa diine yi loolu day heurté ngëm pas-pasu nit ñi pas-pasu nit ñi waaw bëkk démb rek euh, Cheikh Lamine bi mu waxee ba heurté pas-pasu chrétien yi gis nga ko affaire bi rëy ba wax nañ ko fu ne fi gën a kawe ci réew mi ci ko wàll yépp kon Euh, Sénégal am na nu mu bindoo am na nu mu bindoo mbon gi li muy fés ba euh, yéen a ngi gis foofu ci parcelle ñi fi doon euh, def seen anniversaire ñu ne ay góor jigéen lañu man chaise yu damm rek laa gis xam naa ba ñuy damm chaise yi lañ koo waaye chaise yu damm rek foofu mu ni wéyëg waaw loolu la Sénégal ñoom ñoo fasul yéene xajoo ngóor jigéen yàlla xam na ni bu leen état bi defalee lu ñu bëgg mooy ñu am sañ-sañu génn ni ñëpp ni mbooloo yépp fii duñ ko fi génne mukk mukk mukk waaw waxuma la Touba de waaye yeneen dëkk yépp la nekk ci Touba moo ne ci ñoom waaw moo ne ci ñoom waaj nañu jekk nañu lu la mën nañ ko accepté waaw ba mu des wàllu nguur gi waaw wàllu pas-pas it gis nga ko ah yokk nañu mburu mi nit ñi kaas tuuti bàyyi essence bi yokk na nit ñi kaas tuuti def ay plateau bàyyi waaye nag yee diw wax na tariixa sàngam nangam wala kilifa diine nangam ah gis nga ko kon nanu jàpp li nu am te nag fes ku yéene jàng xam ko waaye nun mag ñi dañ leen di sagoo waaye dañ leen a umple ndax kat bu ñu génnoon fi toll nii bu mag ñi del biir na mën dinañu jaaxle ndax liñ fi bàyyi woon ak fañ ko bàyyi woon buñ ko xoolee léegi folklore bi da koo cuub da koo cuub lool lool lool ñu am waaye fan yee sama rakk jële Souleymane Badiane di tontu waxkat boo xam ni euh, kon dama ñàkk jot ba war koo mën a diglu ba def ci samay jàngat ndax ñi ma ko am waaye bari na waaye am na loo xam ne yow ko wax yow yow la ñeel Cheikh Cheikhul Bamba wax loowu la ko lañ ci diblu nag ngir ñamel ni yow kontaan ca am fuñ la teg am luñ la jox kon loolu yaa xam yaa ak ñoom waaye yooyu yooyu dañ ko war a bàyyi parce que bokk na ci yiy jaxase jullit ñi léeg la waaw parce que su fekkee ni danga nga nekk taalibu Cheikh Amadou Bamba nga wax publiquement muy tasaaroo nit ñi toog nga yor sa micro ñëpp dégg la nga bonal ngeen baal ma ci baat boobu nga bonal euh, mbooloo mu dul mbooloom Cheikh Amadou Bamba nga bonal ko yow li nga def mooy yow yaa bonal yaa bonal jullit yëpp amul amul amul koo ci bàyyi ndax am na ko xam bu ko dégg ci saasa lay fayu la nga wax ci ci mbooloom mu wax ko ci mbooloom Cheikh Ahmadou Bamba te ba salaam bam ne bu leen saaga seeni waajur ñu ko nit lu muy saaga waajuram mu ni waaw boo saaga waajuru jàmbur bu la ko delloo yaa saaga sa waajur te loolu loolu mi ngi am mi ngi am de saa yu amee boo ko déggee yow mi wax njombeli boo ko dégg boo ko déggul am na ku la ko delloo la nga wax sëriñu jàmbur mu delloo la ko wal iyaasu billaahi la nga wax mbooloom sëriñ booba mu delloo ko sa mbooloo daal di koy tasaare loolu nag fu ñu jëm iblis kontaan iblis kontaan waaw teguñu ko fenn teguñu ko fenn nit ñi lañu xam lu jar tasaare ak lu jarul tasaare ki jar diglu ak ki ak ki jarul diglu ndax sa bopp rek nekk ci li la soob ci sa diine ak ci sa tariixa di doxe noonu la sëriñ ba nga nekk ci tariixaam bind la bind ci tariixa ba jéemoo ko xam wala boo ko xamee appliqué woo ko doon sab daanukat di dem loola yow rek la ñeel waaye amul benn njariñ amul benn njariñ yooyu dafa war a xew yi sax waaw dafa war a xew yi de waaw waaw mbokk kon nañu góorgóorlu bu baax nañu fay bori koor gi mbokk yi eh, nañu eh, waajal waaye koor waajal ko ngir fan laa war a woore ren ndax béréb sàngam day tàng eh, koor gi léegi mu ñëw di jàmbat chet yokk li nga doon def ci wàllu foof féexal sa xol balaa koor gi ñëw ndax dutoo ko amati yooyu yëpp ngëm yàlla gu feebar rek la waaye gan goo xam ni bu ñëwee leen rek la bëgg ko gane leen mooy ay jaamu yàlla na nga fexe ba euh, na gis gan ba buy dem mu am lu mu la yóbbaaleel xamoo weer wii ñëwaat dee la fi fekk muy weeru koor gi ñëwaat wala déet kon da ngay waajtaay waajtaay woo xam ni waajtaay wu diggu doomu lay doon wu diggu doomu xam li ko tax muy tàqale ak bàkkaar xam li ko tax a jóg mooy jox la ngërëmul sunu borom subhanahu wa taala rek waaw mbokk yi bi yi ma tudd fii yëpp yàlla na yàlla nangu bis yooyu la ci nekk ci ay njuumte ay dérapage ay folklore yëpp yàlla ko yàlla jéggal ndax gi jóge fii kat léegi biñ sëlmee lay jàkk ci rek ñu ngi ñaanal leen ñii dem chaaru chaar général bi ñaanal leen ñii bëgg a dem biir suñ sàmbay bi tey jii moom it ubbi daaraam jooju Kër Masaar ñaanal leen ñii ñaanal nangam nangam nangam nga gis eh, ay jigéen yu ndaw sol lu weex tàll ah, ànd ak i góor taxaw fii ci tëli bi ñi dañuy dem siyaar général loolu nag aman ko moo gën bañ koo am on Sénégal yal yàlla saxal fi jàmm mu mel ni buñ eh, si siwaatee ci solo siñ doon waxtaane ndax yonent bi moom it am na lu mu wax ci wàllu sëy sëy kon man mën naa toog nii rek xam naa sax bu ñuy wax xañ na ki mag ba magal dem ba boroom këram wàññeeku mu foofu toog noonu rek ndax yu bari mën naa tax mu toog noonu te yàqalu ko dara ci jaamu yàlla waaye ki xam ne musta am jëkkër nag kooku ëpp naa xalaat maanaam mu toog toogin woo xam ni moom kami xaar daanaka du gaaw a ñëw ndax daa bëgg koo xam ni xam na ni kii moom dara lépp lépp léppam neex na ko doy na ko ah yóbbul nag waaye dugg ci koo xam ni eh, am na loo sikk sàkk ci moom neexul ndax sëy dafa dañoo jigéen ñi te mu yàgg te mu yàgg ndax loo xamul fu mu yam yàgg na loo xamul nu muy guddee yàggul kon dara yàggul waaye eh, lépp a yàgg boo ko dee xool surtout sëy waaw ndax juróomi ati sëy yoo xam ni dafa naqari rek ah, kenn xamul nu mu kenn xamul nu mu toll kon bu ñu waxee sànni nañ ci segg xool nu ñuy def ba jariñu ci sëy bi te duñ ci loru ndax alxuraan bëggul nit ki bëggul nit ki lore waaw bëggul nit ki lore kon Ibnu Abbas waxoon na yonente bi alayhi salaam nee na Euh, képp ko xam jox nañ la ñeent yi ci àdduna li baax ci àdduna yépp ak àllaaxira jox nañ la ko ah ngeen ñeent nee na xalban shaakiran xol boo xam ni boroom sant katu suñu boroom subhaanahu wa taala la wa lisaanan zaakira ak làmmeñ woo xam ni day zikar day tudd yàlla lu bari allah akbar wa badan anil balaa'i saabira koo xam moom yi ko suñu boroom di teg xam na ni yàlla la mu di ko muñ muñ muñ rafet di ko muñ du tee nga xaju nag waaye danga koy muñ wa zawjatan ak jabar joo xam ne laa tabaxiihi xuubat fii nafsiha wa maaliha jabar ju baax jin waxan kiram joo xam ni kat moom béwul bala yóbbe bàkkaar lu jëf bàkkaar ak ci sa alalit du ca déborde mukk ñeent yi mu ni ku ko yàlla defal waaye mbokk yi day mel ni kon li tax sëy baax ñett yi ñu waxan keroog gis nga sëy sëy mooy ñetteel ba ñeent yi sëy moom mooy ñeenteel moo tax kon bañ a sëy moom sa giir dund ah, ëpp naa def ëpp naa def même bi nga doonee mag sax doonte buum gi daa am koo ko jox sax am na tuyaaba yu lay ñeel joo xam ni ki def ni yow te amu ko moom du am tuyaaba jooju waaye nag mag moom du def loo xam ne dalul xelam dalul xelam dara nekku ci waaw gis nga ko ak yeneen yu bari yoo xam ne alayhi salaam ah, wax na ko muy yuy tegtale ni sëy kon ndekete moom ëpp naa yeex a def ëpp naa yeex a def waaw ndax eh, fii jamono toll am na ñoo xam ne waxtaan nañu ba la ngay joxe ci sëy bi yépp ñu tax diit ko ni fii la yam li ñu yóbbu ci jàkka ja nàngam la fan yii nii rek am na ñoo xam ne siiwal nañu seen gox ba léegi dañoo waxtaan nga xam ni jabar lu seer seer seer àggul cinq cent mille da ngay jox lépp donte jigéen la ëpp na loolu waaye jamono toll foofu te bëgg liñ seen doom rek sëy seeni doom am ay soxna kon waxtu jot na asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani